tu diggéenum réew danoo xamul li ci géenum réew la la la la xalaleen yanu daara waaw mais Njaay na yegsi ban sam na ko yegsi waaw waaw ndeysaan ku nekk mi ngi naan kii aw kan la waaw ne liti ndeysaan lu doon ci wax ba ku nekk saxoo ba liggéey suñum réew na li ci yéen li yaay lu ngeen ci wax ba Macky Sall ñu subventionné artiste comédien yi ñu ngi noonu ah. oh. mi def maas di liggéey suñum réew. ndeysaan mi ngi noonu. mais kontaan yaay booy kontaan nañu kontaan noonu léegi nag dañuy dugg nag ci Singom Singom la ñu bëgg mu dem taxaw nële. la temps nag instant yi ñuy dalal tamit ñi nga xam ne mooy per bu xar ñu daal di yóbbu si ngom mu taxaw fële bégal nag suñu grand yi ah, ah. delloo si ñi nga xam ni nee nañu ah, élément waaw waaw sëy waaw si ngom nee na mhm. moom si boppam waaw daf ñuy léebal tuuti rek